سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل محتال فقير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم Vamos aqui.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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu man istajara ajiran fa taraka ajrah fa amila fihi almustajir fa zaada aw man amila fi ma li ghayrihi fastafdal gisoon nañ ci bunt bi nga xam ne moom mooy wax mbiru képp koo xamante ne dafa liggéeyloo ab nit boo xamante ne daf ko jël loolu di ko liggéeyloo mu daal di fooy bàyyi fax nag kooka dem bàyyi fa payam mu daal di ciy jël daal ci liggéeyaat moom ki nga xamante ne moom mooy ki doon liggéey loo waate maanaam daal di jël mooy employé bi daal di mujj jël euh, salaire u euh, employeur bi daal di jël salaire u employé bi maanaam daal di commencé euh, di ci liggéey di ko fulandi ak yu mel noonu wala boog mu mbir ma daal di yokk wala boog nit ku jël alalu keneen liggéey ci loola daal di koy jural maanaam am lu ko jural loolu lan moy atem ci suñ jotay bi wessu gisoon na ñi nga xamantene mom mo moo aju woon ci loolu walillahi alhamdu wal minna ñu gisoon hadith sayidna abdullah ibn umar radiyallahu tabaraka wa taala anhuma li nga xamne mom la doon wax ni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum manam bi nga xamantene mom la ne deggon na ndawal dégg na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne am na ñett ñoo xamante ne dañoo dem ñetti góor ñetti gaay yoo xamante ne dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitu woon maanaam dañoo demoon eh, don ànd waaye ba hatta eh, aw ilal ila gharin fa daxaluhu fan xarat xadarat safratun min al jabal fa saddat alayhimul ghaar maanaam ñu daal di ànd ba ñu àndee daal di dugg nag eh, ci benn xur aw aw doj woo xamante dafa xaw weeku daal di daanu eh, mu daal di leen di tejal nak li nga xamantene mom moy eh, buntu ba eh, lool nak ko manam pour wa nak daal di tëj ci seen kaw lool nga xamantene mom lañu la nak bu nag mu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di nettali li nga xamantene mom mo xewon ci seen mbir ba mu daal di ci ki nga xamantene mom moy manam kenn ku ci nek di ñaan li nga xamne mom moy mooy sababu muccam ba ñu yegse ci ku mujjuka nag eh, kooku eh, moom daa di wax ne li nga xamante ne moom la defoon mooy ne dafa am ku mu liggéeyloo woon ba mu ko liggéeyloowee eh, mu ne ba mu ko liggéeyloowee ñu daa di jàppante wala waaja daa di fay bàyyi alal ja daa di dem yoonam maanaam ba nga xamante ne ca la fa demee ca la demee yoonam nag léegi nag mu daa di jël alal jooju daa di koy fulandir di ci liggéey mu daa di bëri dégg nga mu daal ni kon nag moom fa mu ne mu ne kooku dama ko dama ko dafa dem moom mu ne waajooju kenn ñëpp la fa jox seen pay ñim doon liggéeyloo ba mu des benn waay kese nee na ghayr rajulin wahidin moom taraka alladhi lahu wa dhahab moom moo bàyyi li nga xamante ne moom moo ko ñeeloon ci pay mu daal di dem yoonam fa sammartu ajrahu hatta kasurat minhu al amwal nee na ma daa ma daa di koy fulandil ma liggéeyal ko li nga xamante ne moom mooy alalam ba alal ja di bari lool waaye mu daal di dikk fa jaa ani ba'da hiin ginnaaw jamono mu daal di dikk nag mu daal ne ma yaa abdallah addi ilayya ajri e yow jaamu yàlla bi delloo ma sama jox ma sama pay nee na ba mu ko waxee loola nee na fa qultu la kullu ma tara min ajrika min al ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq nee na lépp li gis ni yépp muy lépp sa sa sa sa la mooy jur gi nga fi gis ak li nga xam ne moom mooy nag yeeg bëy yeeg kii ak gëléem yi ak li nga xamante ne mooy xeeti jaam yi fi nekk maanaam li li kii yi ñuy lekk maanaam pepp yi fi nekk yëpp lépp yow yaay ki nga xamante ne yaa ko moom mu ne ko yaa abdallah la tastahzi bi ay yow jaamu yàlla bi bul ma kokkali waay waaye mu neen muy ko edeel inni la astahziku bi ah inni la astahzi'u bika fa xudhu kulluhu fastaqa nee na mu daal di eh, ma ne ko man te kokkaliwuma la eh, de jëla lépp yaa ko moom nee na mu daal di jël daal di koy wommatu nee na falam yatruk minhu a te bàyyi wu ca dara léegi nag mu mu daal di ñaan ci barke jëf jooju nga xamante ne moom la ko defal léegi daal di xurwa daal di maanaam buntu ba daal di ubbeeku léegi nag ñu gis bi nga xamante ne moom lay wax naan léegi ñu gis buntu bi ci tegu mu ne baabun man ajara nafsahu li yaxmila ala zahrihi summa tasaddaqa bihi wa a wa wa ujratil xammaal maanaam mu ne man ajara sax buntu bii day wax ci man képp koo koo xamante ne ajara eh, day liggéeyloo nafsahu boppam maanaam mooy day jël boppam def ko salarié maanaam eh, nee na li yaxmila bu ko defee mu daal di eh, yanu ala zahrihi ci digg ginnaawam maanaam mu xool loo xamante ne day dem di ko yanu mooy lu demee nekk ñoom dokeer yeeg ñi def manutention ak mooy xeetu liggéey yooyu yëpp mu nekk ki nga xamante ne kon xeetu liggéey yooyu la imam al-Bukhari yi di wax fii rahimahullahu taala ne dafa dagan maanaam loolu ci kaw ci gàttal mooy ne léeg-léeg nit ki jàpp ne xëy na dafa am yenn liggéey yoo xam ne daa xaw a jege ak njaam wala dafa xaw a métti lool wala dafa def maanaam askanontewul ak seen gëdd ñoom ñi ñu doon maanaam léeg-léeg ñu jàpp ne comme ñoom ay kilifa na xëy na yenn liggéey yi du yelloo ci seen maqaama wala ci seen daraja wala boog ci seen gëdd wala boog ñu jàpp ne xëy na euh, waaye ay plonge ak yooyu non loolu dafa metti euh, wala ñu jàpp ne euh, di def manutention wala boog di mënee baru comme niñ ñu koy waxee mooy mënee bar loolu yaakaar naa ñoom noonu la ñu waxee mooy mën ouvrier mooy kii nga xamante ne ñoom ouvrier yi nga xamante ne ñoom bu ñu leen ñoom ñëpp ñoo ñoo xaw a nuroo ko maanaam jarul qualification. maanaam da ngay ñëw rek ñu ne la saway liggéey bi nii la defal lii et cetera am na ci ñoo xam ne dañuy jàpp ne xëy na loolu dafa am ñu ko war a def wala ñu ko war a te def ngir ne gëdd yi de dépend tamit yow ci ban gëdd nga bokk wala ban askan sa sa yax nan la toll ndax dafa rëy wala daf xaw a sew wala yu mel noonu bu boobaa ñu xool ndax da nga koy liggéey waa wala déet ak yu mel noonu muy wax ne loolu nekkut loo xamante ne euh, lu aay la maanaam amul lenn loo xam ne dañ naan masalan diw moom comme diwoy baayam wala diwoy maamam wala diw moom comme moom maanaam euh, ab taalibe la wala boobu ab sëriñ la wala comme diw moom moom ab nangam la moom kon liggéey sàngam moom waru koo mën a def maanaam rawatina yi nga xamante ne euh, boobaa yow nit ñi ñoo lay jox seeni bagage nga leen koy yanul wala book maanaam nga di yanu yu diis yeeg ak yu mel noonu di def ay manutention di def wala di manee baru wala book xeet yu mel noonu euh, yooyu yëpp lay wax ne loolu di wax nag ci wàllu boobu Euh, ak tamit mu ne summa tasaddaqa topp nag mu saraxe ko maanaam nit ki sax moom ci jëmmi boppam du ne sax alal ji daf ko soxla waaye maanaam kon li muy tekki mooy rawatina bu dee da ngaa soxla alal ji segam ki soxlawul alal gi maanaam ngir ne li mu soxla woon rek mooy dafa bëggoon a saraxe dafa bëggoon di participer ci ab projet boo xamante ne ñëpp parce que li tax dinañ ko gis ci xadis bi incha allahu taala ngir ne xas watu Tabuk lañ doon waajal maanaam ñu xool maanaam ku nekk di indi li nga man maanaam ku nekk di indi li nga mën a li nga mën a joxe waaw bu fekkee fekkente ne ajuwul sax ci yow li nga xam ne moom mooy say dépense dund say dépense bopp mais dafa aju rek ci ne l'islam moo soxla wala boog maanaam ñëpp bokk soxlaandoo ñu xool man la ñuy defandoo ba jëmandoo ba yëkkateendoo ba tegandoo ba lépp jëmandoo ci kanam ñu xool kon alal jooju fu muy jóge amuma ko ma ne naa dem wuti ji ko daal koy wuti ci anam xeetu liggéey yu mel noonu yooyu moom moo tax muy wax mu ne wa wa ujuratul xamaal maanaam tamit di wax ci payu ñi nga xam ne ñooy ñiy yeno maanaam mooy ne nit ki tamit su fekkente ne danga koy da nga koy liggéeyloo da nga koy fay maanaam ki nga xamante ne da nga koy wut maanaam euh, à part bien sûr ñu nekk ay ay ay ay àndandoo ay ay ab di jàmm ak yooyu di jàppalante xanaa yu mel noonu waaye de booy liggéeyloo nit maanaam ci wàllu googu tamit danga koy fay ba ba da nga koy fay loolu benn la ñetteelu mbir bi nga xamante ne moom la ci jublu itam moom mooy ne pay payu liggéey maadaama liggéey bi dagan na kon pay gi day dagan maanaam maadaama liggéey bi dagan na pay bi day dagan ak liggéey boobu li nga xamante ne moom lay niiw niiw niiw ci bëtu ñenn ñi waaye maanaam liggéey bu tedd la comme ni nga xamante ne noonu lañ koy waxe ne eh, moom tubaab bi daf koy wax naan il n'y a pas de sous-métier maanaam loolu amul maanaam lépp loo xamante ne yaa ngi ciy am alal loolu mooy métier bu baax maanaam lépp loo xamante ne amoo ci dara maanaam danga nga sonn nekk ci ay at te doo am dara loolu métier bu bon la tuddu maanaam loolu daal mooy li nga xamante ne eh, eh, moom fa la mbir yi moom la la mbir mi aju maanaam mbir mi nekkul ni faw da ngaa war di sol Corse ak karawaat di toog fu ni climatisé déedéet maanaam léeg-léeg eh, bu fekkente ne loolu soo ko defee itam doo am dara kenn loolu jaru ko maanaam li am solo moom mooy bu dee boo ko defee dangay am dara waa baax na mais boo ko defee li ngay am day yem képp ci say aajo. bis bu nekk nga nekk ci ci xat-xat maanaam balaa le quinze sa waay sa sa compte yëpp kii nga commencé sa euh, yorofo xam naa ba weer wi dee maanaam ci loolu ngiy dëkk loolu moom du liggéey bu baax léegi nag bu fekkente ne nag euh, liggéey boobu la boo xamante ne da nga ciy am di di di dund waaw di mën a def dara ba mën na sax génn asaka loolooy liggéey bu baax bépp liggéey bu la dul permettre ngay génn asaka du léggéey bu baax liguey bu baax moy liguey bi lay permettre nga génne azak motax nga gis no alquran bi insister tout le temps wa aqimus salata wa atu zakat de la taxawal julit na ngeen di joxe azak voilà manam moy ne kon yow liguey liguey def mën nga ci génne azaka lolu liguey bu baax voilà naka nono lépp lo xamantene comme ni wa aqimnas salata wa atina zakata wa ati'na allah wa rasulahu bimi wax soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne len na ngeen di taxawal julit de leen joxe azaka maanaam mooy looy def te mënoo ciy génne asaka maanaam jàpp ko foofu yow lépp loo yow boo xoolee yow li ngay liggéey nga gis ne man maa ngi ni di liggéey mais mënu maa génne asaka xamal ni liggéey boobu nga yor baaxul parce que ab jullit bu normal daa war di génne asaka ab jullit bu normal daa war di génne asaka loolu daa bokk ci normalité wu julit parce que mooy mooy ginnaaw gis nga bu ñu génnee ponk l'islam maanaam baatu seede première chose mooy julli deuxième bi bi ëpp solo mooy génne asaka boo nekkee ci ay biiru ci climatiseur ci nangam nangam di signé monsieur le nangam ñu ay jox ay titre ak i garat te te te te yow bu bu weer wi deewee comme li ma waaj a waxoon li ma gis nga man bu weer wi deewee su ma fayee sama sama logement maanaam dafa ma wax kii bi affaire bi sax da yëm maanaam façon nit boobu. effectivement waa ji foofu rek day sol koos karawaat yor na oto oto service sax la nangam xeet yu yëpp da koy am mais mu ne bu fayee salaire am euh, euh, fay euh, kii maanaam bu fayee logement am te logement bi sax taxu koo baax noonu bu fayee logement am def ay course pour waa kër gi daanaka li muy dese da koy korkoral li essence ndox essence bi muy dugal sax ci oto bi dégg nga boo moytu mu mu yenn moment yi day tëj. parce que tout simplement euh, euh, day compliqué en fait maanaam ce qui veut dire que à partir du 10 du 14 du mois c'est sûr que c'est sûr que a yanu beneen dépense supplémentaire supplémentaires. Limite dundee rek lay ba weer wi dee rek la yor manam moy luko ko bett luko lu mu à partir du 14 mois luko ko mu xam nga lolu seen bi lolu du liggéey bu baax loolu du liggéey bu baax titre rek ngay yor. léegi nag loolu nag la gars yi di jaawale maanam yor ab titre ak yor ak parce que parce que liggéey bu la ci kenn naxam ah, gars yi li ñu doyee liggéey mooy am xaalis sax ah. fii ñii liggéey pour jaamu mu def ko jaamu yàlla bariwul ne pour am xaalis la léegi nag c'est pour am xaalis kese la yow na am bu baax maanaam buy indi xaalis jeex na voilà nu muy gën a indee xaalis booboo gën na dagan rek dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab la haddathana Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id moom ibnu Aban Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id ibn Aban al-Baghdadi Abu O Usman mooy dàqantalam al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala di wa Baghdad bokk ci fukkeelu tabaqa bi génn àdduna ñaar téeméer ak ñeent fukk ak غدا ينتبي عليه الصلاه والسلام من قال حدثنا ابي سعباي مؤمن ترمي يحيى بن سعيد ابن ابان بن سعيد بن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن اميه ابن عبد الشمس مانام نونو نون ابن عبد مناف فوف لا بوكي ينتبي صلى الله عليه واله وسلم كون مون موي ابو ايوب القرشي الاموي مانام تي وا بنو اميه Ah, ah, al umay umawi ah, rahimahullahu ta'ala dàkkantal maam laqabam dañ ko koy wax al jamil wala eh, jum jumlaanan dañ koy wax jumlaanan abu ayub moom mooy dàkkantalam kon rahimahullahu ta'ala eh, moom eh, gën a ci yaxya ibn sa'id al umawi imam maanaam ci ñi gën a siiw ibn sa'id am na ñu siiw ñi maanaam kii kenn la ci mooy ibn sa'id al qattan Yahya ibn Sa'id al-Ansari kii moom mooy Yahya ibn Sa'id al-Umawi maanaam euh, rahimahullahu ta'ala moom bokk ci juróom ñeenteelu tabaqa bi gane àdduna téeméer ak fukk ak ñeent euh, génn àdduna téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa al-A'mash muy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili al asad yi eh, di eh, waa kuufi al kuufi ne ne maanaam tabristaanul asl rahimahullah waa tabristaan la ci cosaan gën a siiwee ci al amash eh, rahimahullahu ta'ala mu ne an shaqiq muy ibnu salama naam ak shaqiq ibnu salama daakantalam nekk abu abu naam rahimahullahu ta'ala bokk ci ñaareelu tabaqa bokk ci maanaam yu mag yi manam nga xamantene mom moom muxadram la rahimahullah gane aduna at bu njëkk ci ginnaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom hadith xadiisam nekk ci kutubu sitta huna an abi mas'ud al ansari radiyallahu tabaarak wa taala anhu mu tudd ibn amr ibn salaba al ansari radiyallahu taala khazraji dagn ko xamit al badri manam comme ni nga xamantene borom ko xam yi wutul lañ rahmatullah alayhim ci ne ndax do fekke war badar waaw wala det loolu Euh, moo tax ñu koy askanale al-Badri moo tax mu gën a ci Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu euh, moom comme niñ ko gisee woon maanaam ñu mel ni al-Hafiz ibn Abd al-Barr wala ñu mel ni ñoom dañoo jàpp ne moom euh, fekki wutoon Badar waaye imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom def ko dëgëral maanaam ne ahankay pourtant fekke woon na Badar ndax am na xew-xew boo xamante ne daf koy tegtale Euh, moom nag mi génn àdduna fanweeri at ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk ci saxaaba yi radiyallahu tabaraka wa taala anhu nga xam ne solo la ay xadis maanaam téeméeri xadis ak ñaar maanaam mooy li nga ne moom lañ ko solol bokk na ci juróom-ñeent yoo xamante ne muttafaqun la imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom dëppoo nañ ci solo ko imam al-Bukhari wéetoo na ci moom benn xadis imam Muslim wéetool na ko juróom-ñaari xadis radiyallahu taala anhu wardahu an nabi annahu nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amara bu daan digle bi sadaqati ci saraxe maanaam mooy eh, bi nga xamante ne moom lañ dooroon eh, eh, sarax maanaam mu nekk xew-xew boo xamante ne xew-xewu Uhud bi la mu ne fekk ba nga xamante ne moom la amee woon nag loolu bo mu amee gis nag ku mel ni Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moom daal di indi juróom-ñett fukki junni ci ay diinaar maanaam daal di ñëw joxe keneen daal di ñëw indi leneen keneen ku ne indi leneen maanaam nee na nag waaye nag fa yantal waaye intalaqa mu daal di dem ah, ah, ahaduna kenn ci ñun ila suuqi eh, ca jaba fa yu xaamilu mu daal di yanu nag maanaam mu daal di dem eh, ngir ñu fay ko eh, ñu ñu maanaam mu daal di dem ne day yanul nit ñi ay bagage bu ko defee ñu koy fay maanaam muy liggéey loola dégg nga fa yusibu bu ko defee mu amee ca al mudda benn mudd manam muddu gis nga lu mom lañ ko jox han ah, ci ci ci ñam rek manam comme ay orge wala manam xet yoy manam lu tolloog rek eh, daal manam gën à peu près eh, mën nañu walu li tax lañ ko jox wala mom lañ ko jox eh, ci wala walu li tax wala mu ñaari wala manam mom lañ ko jox mu daal di indi ah mu daal di indi ne manam mom lay lay saraxe fekk wa fekk nag inna li wér li ba'dihim ñeel na ñenn la mi ak alfu junnaane am nañu téeméeri junni maanaam lu ëpp loolu moom mooy ku mel ne Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu waaye ba mu waxee mu am ku ne inna allaha wa rasulahu an muddi hadha la ghani wala inna allaha an muddi hadha la ghani maanaam ah yàlla daal doyewul muddu kii dara waa ji ah xam nga mooy ne ah saa daal xam nga lan la boo leen di saraxe tamit da ngeen saraxe bu xaw am solo quoi mais seen weccet yi ngeen di saraxe vraiment voilà mënoon ngeen ñu ko baal rek quoi xam nga wala yooyu soxla wuñ ko wala genre yooyu maanaam di kii borom subhaanahu wa taala wàccee nag aaye di dal ñu alladhina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhira allahu minhum wa lahum adhabun alim voilà mooy muy wax ne naafeq yi nag noonu lañ mel mooy ñi nga xamante ne eh, dañuy commencé dañuy dañuy dañuy mbëllee eh, ak a tooñ ñi nga xamante ne ñoom eh, ci ci wàllu saraxe yi maanaam ku nekk bu indee di joxe maanaam ñu def appel voilà gars dugal leen ku yor dara rek indil ket dugal leen affaire lañ bëgg mu dem ku yor dara indil nga gis ku indi ay million nga gis garawul baax na macha allah ah loolu am na solo. bu am na ko nga gis ko xamantene lim am moy deureup ñaari deureup la am mais na ko indi buñ ko wu ñaari deureum yoy nak nga taxaw naan waye wala xam nga rek saa yi yéen gor gor lu len quoi parce que vraiment voilà li dal da ngay war motax mu ne yalla dal yalla soxlawul muddu mu du waji waji nak non waji nak wax deug yalla mu dem bi mom yalla <laughs> wala voilà vraiment <laughs> xana du li ne yalla wut wala quoi da maanaam genre wala ko dara quoi voilà <laughs> waaw inna allaha an mudd hadha la ghani waaw mooy mudd waa ji daal vraiment yàlla doyu doyu ko dara quoi maanaam yàlla daal am na ba nga xamante ne doyu dara mais bu dee loolu kese la cinq millions yàlla doyu ko dara maanaam bu dee ci ci ci ci li ko teg rek mooy bariwul yow la bari ci say bët mais ci kanamu ci kanamu yàlla du dara voilà moo tax li ëpp solo comme li alquran wax la lan yanaala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum ci xaru tabaski bi mu ne ragal yàlla euh, euh, euh, deret yeeg ndawal lu duuf léeg yépp du loolu moom mooy yegg ci yàlla yàlla li li yegg ci moom maanaam li ko amal solo ci mbir mi mooy ragal yàlla gi leen yóbbu ba ngeen ne ah lu mu metti metti faw naa rendi farata misk ngir jaamoo ko yàlla pas ngir ñi gis ne rendi ko yàlla pas tamit ngir dama ah, léegi dootuma célibataire déedéet ngir jaamoo ko yàlla fii tamit noonu la voilà mooy nga xamante ne eh, kon eh, ñooñu ñu doon wax loolu nga xamante ne léegi dañuy di mbalag wax gaa yooyu borom bi nag subhaanahu wa taala ci aaye ne ak ñi nga xamante ne laa yajiduuna illaa juhdahum maam ñi nga xamante ne dèjà ñi ngi jëm maanaam dañuy ñoom ñëpp la ñuy mbalak dañuy mbalak ñii indi ñu ne dañuy gis tal al mutawwi'ina mooy ñuy coobarewu di indi ñu ne dañuy gis rek boo moytul am nañ ay yeneeni jafe-jafe yu fi nekk dëfuñ ci dara boo moytul nangam nangam mooy al mutawwi'ina ñooñu alladhina yalmizuna ñooñu dañ leen di dañ leen di dañ dañ dañ dañ leen di eh, wax wax ju ñaaw mais aussi ñi walladhina la yajiduna illa juhdahum ñi nga xamante ne tamit amuñu lu dul seen coono seen maanaam def nañ effort bi ñu mën indi lii ngeen ñi tamit yàlla doy wut ni dara fa yasxaruuna minhum ñu leen di mbëllee di leen mbalak di leen kukkali saxirallahu minhum borom bi ne maa ngi leen di maa ngi leen di maanaam mooy man it maa ngi doxale ak ñoom doxale na kuy ku ku leen ku dinaa leen bëggal bëggal bu métti kon euh, loolu euh, mu ne mu ne loolu ba mu amee nag mu ne kon nag qaala euh, ki nga xamante ne moom mooy Shaqiq ibn Salama moom moo wax mu ne laa naraahu ñun de gisuñu ko illaa nafsahu lu dul boppam maanaam ki ki ki mu wax ne da doon dem di wuti ji di yanu ji ñu koy fay ñu fay ko mu mu amee mudd rek mu daal di ñëw indi joxe maanaam loolu la maanaam yow ah waaw te te loolu day wane maanaam lu ñu naan économie participative loolu dafa am solo maanaam mooy ku nekk na joxe ku nekk na nga indi li nga am bu ko defee bu ñu ko boolee dina am lu mu ñu jural lu ñu mën a indi lu mu mën a indi voilà liñ bëgg a tabax liñ bëgg a defar liñ bëgg a yëkkati na ku ne joxe voilà léegi tey yow bul toog rek daan ne par exemple man amuma loolu la lay wax ni. non man moom fi mu toll amuma quoi jeex na maanaam jàpp nga ne boo nee amuma rek fi mu toll euh, am nga am nga maanaam mbir yi teggeeku na la nga def comme moom ni mu def ok am amuma mais xam naa ne marché boobu moo fa demee ne gars yi naa leen yanul dinañu ma dinañu ma fay waaye ku yor ab dàmbaam bu mu ma yanu yanu ko dàmbaam koo ku yor ay bagages yu ma ko war a yóbbul ma trans ma defal ko ko. ainsi de suite yooyu noonu ñu fay ma xaalis mu ñëw participer loolu mën naa ne aussi loolu tam mën naa ne quoi mais yoruma rek waaw non man nag yoruma jàpp ne fi mu boo nee yoroo rek maanaam ci sam xel boo ko jàppee gis nga tel lii ah day créer tam développement moo tax parce que déjà day créer maanaam xeetu liggéey même bu dee c'est temporaire. mais que besoin bi bu fi nekkee yow loolu mën nga cee jóge sax xam ne ndekete besoin bi am na nga explorer marché bi mën nga cee am alal ju baree bari parce que gis nga léegi commencé nga étudier besoin yi xam nga ne ah soxla yaa ngi nii ñii am nañ soxla yi il suffit ko ma ma ma ma ma mu jël ci ku nekk weccet bu ma ko dajalee damay am lu bari loolu mën naa ne te mën naa mën naa xool. naka laay def ba di yóbbandoo lu bari mais bu yàggee sax ma wut ba xool nan laay ak voilà voilà nan la nu muy demee quoi loolu yëpp dafa ay ay ay ay ay day joxe ay idée maanaam tant boo nekkee nekkoo ci terrain bi souvent doo xa doo doo doo doo exploiter sa idée compétence su nit nit compétence am nan lay def ba alal di yokk alal ji mu mën a am nu muy yokkoo compétence yooyu noonu parfois day dépendre ci ni ngay xamee terrain bi voilà parfois nga def yoo xamante ne dangay foog ne lii du mënta am alal alal mënu ci juddoo mais le fait que nga ko nga naa def naa xool loolu moo lay moo ne la buntu bi mën naa ubbi nga daal di commencer ci am alal yu baree baree bare voilà exemple tey mën ngaa jàpp ne non affaire yi bon yor naa sama oto euh, oto moom liñ ci xamoon mooy di dem ba ko dikk boo paree nga daal di dugg toog et yor naa sama voilà nga yow jàpp nga ne loolu rek la mais léeg-léeg day am nit ñoo xamante ne dañuy soxla de temps en temps di ko di dem di defi ay affaire ak ñëw boo ko découvrir la nga gis ne ndekete mën na laa jural alal ak yeneen ak yeneen ak ah, ak compétence boo mën a am quelque soit man ndekete chauffeur la mais ndekete man toog fii sama temps libre yi nii mais man ndekete mën naa dugg fenn wax ne gars yi ku bëgg ku la yóbbu rek man ni kii la sama tarif yaa ngi jeex na Euh, euh, euh, ngay dawal jarul sax ngay wut taxi boo xamante ne day da ngay yóbbu nit ñi dellu si maanaam ku bëgg a dawal yor na oto daa c'est que moom tey dafa disponible pour dawal wala kaka daan dawalal moo fi nekkul kese nga dugg ci plateforme yi surtout ak internet léegi waa gars ku bëgg loolu waaw maanaam loolu nag ci compétence boo mën a am la loo mën a am loo xam xam-xam boo mën a am bu mënti doon mën nga koo exploiter nit ñi jariñu ci nga nga jariñu ci ci lu mën a doon nag voilà ci lu mu mën a doon man ay plan laay defar ok ay plan laay defar gars yi ku bëgg ay plan maanaam nga xool noo noo ko amee lu ne nga mën a jaay ay relation sax mën nga koo jaay maanaam lépp nga mën a lépp nga mën a amee maanaam c'est que en fait mooy moo tax gis nga euh, alal maanaam xadis yi dañu dañu am solo ci ci kiiwu nit parce que Euh, euh, surtout vie wu jullit bi quoi jullit keni moom moom moom xam nga ki amul alal ki amul dara nekkul ki yorul alal ki yorul dara du kooku du kooku moo ndóol moo ñàkk ki ñàkk mooy ki nga xamante ne amul benn idée pour mën a jur dara amul benn idée pour maanaam xam nan lay def ba alal ba alal di dikk mais tant xam nga ni yoon bi lii la voilà peut-être que instant bi am na blocage fii peut-être que instant bi am na blocage fee et cetera mais xam nga yoon yi ngay jaar ba alal génn voilà mais voilà mais boo limité woo rek ci ne ci ci ci ci sa ci sa bopp ci ci ci mbir yoo xamante ne dara maanaam amul amuloo benn benn initiative maanaam amul initiative gis nga Seydina Abu Mas'ud fii ni mu def radiyallahu anhu dafa am initiative nan laay def parce que man affaire bi tiyaaba gi nak man nak ñepp duñ ko am man ma di ko yenen ci bi du soxla alal ji nek fi man man ñepp di am man di di def man duma def voilà mu non na tok rek comme dama amul dara nah, mais dafa dem ci marché bi te bu démé ci marché bi bu gisé mën na mën na mën na ko exploiter mën na xam ne ndekete besoin bi ndégété tollu na fi tollu na fi tollu na fi tollu na fi voilà légui nga gis parfois sax limi yanu dootul mën naa bari ben moment parce que bu gisee ne dañ koo soxla et que qualité la am maanaam ku ko jox bagage am bu ko yóbboo ba dana yegg te dara du ko jot te loolu manqué ku mel noonu manqué mën na na mën na yokk ay tarifo parce que qualité am ainsi de suite maanaam donc y tout ça en te loolu ci lu ne la mën a ne problème créativité vision loolu la laaj voilà donc ku nekk mën na def loolu donc si ci surtout bo déké ci réew yo xamné ne réew yi ndol la dañu ndol amuñ dara amul état bi organisé wul pour mën indi al khalis pour pour mën nit ñi nan lañuy def ba bu mën a liggéey maanaam amul lenn lu organisé manam ce qui fait que boba citoyen bi moo war am créativité voilà té baña nek nekk ci lijjanti parce que lijjanti problème bi moom mooy dadul am production c'est-à-dire que du am production té dëkk deuk bu amul production du développer ce qui veut dire que ni alal di dina circuler mais alal di ni mi circuler day nek d'une manière malsaine du baax soit da ngay dóor marto nit ni wala nga def leneen wala nga def leneen manam wala nga lijjanti comme niñ koy waxe mais lijjanti bi problème bi moom mooy mënta mënta wuy te te mëno ci am lu bari wi di do doo lijjanti di lijjanti ay millions ay milliards non parce que nit aussi jël Allah rek ko ay millions ay non ko donc il faut que am en tout cas de manière il faut yow nga nga créativité quoi voilà nga def ba comme tamit ci ci bi affaire tamit dafa ñi ngay collaborer ñan aussi dégg nga eh, kon eh, xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko eh, xadis 1416 mooy ci kitaabu zaka indi woon nañ gisoon nañ ko dina ko indiwaat xadis numéro 4669 ci kitaabu tafsir soo ci tafsir sootu bara justement bu ñuy tafsir aay yooyu incha allahu taala Euh, imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro bon imam al-Bukhari euh, indi na ko tamit euh, maanaam ci xadis bi jiitu 1416 maanaam mooy 1415 bi 1415 bi tamit xadis boobu indi woon na ko ba ñu gisoon gisoon nañ ci aay boobu tamit cent voilà 1415 1416 4669 imam an nasai imam imam xadis bi imam Buxaari daf ko wéetu wala imam Muslim imam an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro 2529 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 4155 kon nañu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñett ñoo ko itte ni imam al bukhari imam an-Nasaa'i ak imam Ibn Maaja amma imam Muslim imam Abu Daawud ak imam ak Tirmizi ak ñoom indi wuñu ko te mu nekk tamit xadis bokk ci xadis yi nga xamante ne maanaam imam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala te moom mooy mooy xadis bi imam al Bukhari wéetoo wala imam Muslim ci xadis Seydina Abu Mas'ud al al Badri radiyallahu anhu maanaam xadisam bii la wéetoo wëllif imam Muslim radi rahimallahu al jami' mu ne ajri samsam am ajri samsara babu buntu ajri samsara manam payub ki nga xamante ne moom lantinor lantinoor maanaam payub lantinoor ki nga xamante day ñëw Euh, voilà waaw wala maanaam di ñëw di la jàppale ci liggéey maanaam ki nga xam ne day ñëw naan la voilà maanaam courtier quoi wala mooy courtier bi waaw ñoom coxeur comme genre yooyu courtier coxeur xeet yooyu noonu loolu payam moom lay wax ni voilà ne ndax mënef na ko mënef naa fay ku mel noonu ku koy def waaw wala déet waaw ndax lool dagan na wala daganul ndax nan lañ koy defee ak lan moom moo ci aju Eh, kon loolu lay wax ne mu ne walam yara gisul ibnu sirin al imam muhammad ibnu sirin wa ata muy ibnu abi rabah wa ibrahim muy an-Naxa'i wal hasan muy al-Basri yi ñii ñëpp gisuñu bi ajri simsaari ci aju ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy lijjanti mooy nag ñooy eh, courtier yeeg ñooñu gisuñu ci ba san lu ay gisuñu ci lu ay voilà mais gisoon nañ ne am na ñoo xamante ne waruñu leen a defal courtier mooy ñan bi naan laa yabi'u xaadirun li li baadin voilà maanaam bu fekkente ne dafa am ku tukki ku jógee ci kaw ga indi indi marchandise am yeeg yooyu noonu yow wala waaw maanaam yow bul bul bu nekk courtier am ñëwul ñëwal rek moom mooy ñu ne mooy laat ay laa yàquwul na loxo seen saara maanaam mooy bu mu nekk genre courtier am waaw naan ko dama lay jaayal ak yooyu noonu. bu fait parce que parce que manam nako bayyi bàyyi mu jaayee ko ci prix bi ko arrangé mais mom bu ngi ko woone ko sawaay lii mën nga ci am lu gëna reuy jox ko yok ko kii prix bi di gëna metti ci ñu dëkk ci ci tax bi parce que ci tax bi souvent ñom parfois amna produit yi ne yi jóge ci àll bi ku nekk xamna ni tax gi par exemple duñ fi bay mbay du am ci tax mbay ci àll ba lay amee kon moo tax ñu dëkk ci kaw gi ci ñoom ñooy gën a bay voilà élevage yeeg yooyu bon après ku ne xam dañi ni biir Paris ken du élevage bon avant amone na début année mille cinq mille mille ba ci kii waaw mais même lolu du won ay élevage intensif comme ni voilà ñoni bu ñu bëggee jaay seen nag yeeg seen yoy non souvent parfois prix bi ñuy exiger beaucoup ak prix bi nga xamantene tay bu doon ni ci dëkk bi la won ñom lolu la ñuy exiger parce que ñom seen mode de vie impliqué wul. alal xaalis bu bari di circuler seen seen biir donc ñoom day am rek lu ñuy soxla waaw yooyu yenn yi tamit loolu tam day def ci am solo voilà mais ki nga xamante ne moom mooy ki nekk ci dëkk bi waa dama bëgg ku ma jaayal aw ma temps et cetera nga ñëw ne ko ok man man maa lay doxal lii et cetera voilà mooy xeetu liggéey yooyu yëpp nga xamante ne nit ki amul temps wala boog amul compétence bi wala munul ki te bëgg na affaire bi jaar yoon bëgg na mu dox bëgg na mu kii nga ñëw nekk ci diggante bi relationnel boobu voilà entre ki soxla ak ki ci des ngay mettre en relation ñooñu noonu loolu man loolu liggéey la voilà loolu liggéey la quoi voilà contrairement ñu bari lu ñu yaakaar ne dañoo war a dimbali nit ñi noonu naturellement gara gratuitement noonu déedéet maanaam loolu compétence la tamit maanaam <laughs> voilà boo xamante ne nit ki mën na koy def waaw saa yow la mais li ci bon rek mooy comme léeg-léeg ñenn ñi ni ñu koy defee ci gàlle yi bu ñu jaay kër yi par exemple voilà maanaam tey par exemple jaaykat kuy jaay kër wala kuy wala kuy jënd kër man mën naa ñëw eh, jàppale ko ba duñ ko nax ci prix bi voilà après moom mu fay ma le fait man ma dox loolu moom loolu la may fay voilà mais euh, wala bo mu am mu bëgg a jaay këram ma ne ko d'accord dinaa la wutal client ma dem wutal ko client indil ko mais client bi dañuy waxante ba pare ne man ak waa dañuy waxante ne. su ma amee client da nga may fay nangam day précis li may fay day précis maanaam munoo ni soo ko jaayee nangam da nga may jox nangam déedéet man ak yow il mu leer parce que liggéey moo mel noonu emploi moo mel noonu foog salaire bi daa war a leer salaire mënut nekk lu la dem voilà munuma wax tamit saa yow wutal ma client rek di nga kontaan loolu mënta nekk mënta nekk tamit yow saa yow wutal ma client rek yow après. dinaa la neexal loolu tam mënta ne wala dinaa la jox salaire ak neexal loolu tam mënta fokk dafa war a nekk lu leer comme niñ ko gisee woon ci njàlbéen bi loolu dafa bokk ci sart ci ujura voilà euh, mën tamit ne euh, prix wu prix bi loolu mën na ne man su ma jaayee saa yu ma jaayee maanaam danga may bàyyi kër saa yu ma jaayee kër ma ci li ma ko jaayee ma am ci pourcentage sàngam loolu mën naa ne boobaa daf la koy bàyyeeg su fekkente ne léegi soo ko jaayee nga am voilà mais cependant euh, loolu il faut que boo koy wax tamit daa war a nekk loo xamante ne maanaam di nga xam ne kii mi kii dina ko jaay mais loo xamante ne maanaam toog comme par exemple kër gaa ngi nii Euh, léegi yow boo ko jaayee rek am nga ci pourcentage sangam oto baa ngi nii soo ko jaayee am nga ci pourcentage mais prix bii mais prix bi dafa war a leer au départ voilà prix bi fu leerul au départ foofu la problème di amee te loolu dinañ ci ñëw léegi incha allah mu ne wa qaala ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne laa ba'sa aayul an yaquula ci mu wax bi' haadha thawb bi jaayal yëre bi fama zaada waaye lu yokk ala kaza ci nangam wa kaza ak nangam foofu wala ko loolu voilà lii nag wax Seydina Abdullah ibn Abbas bii nag radiyallahu anhuma moom la borom maanaam fuqaha xanafiyey jumhur xanafiyey maaliki shafiyey bañ xanaa bi lay rahmatullah ñoom nangu nañ ko mais xanafiyey maaliki shafiyey ñoom dañ ko bañ yére baa ngi nii mooy comme lañu wax kër gaa ngi nii vingt laa ci soxla lu ci yokk yaa moom téléphone baa ngi nii cent euros laa ci soxla yow jaayee ko loo loo ci yokku baax na parce que lan mooy problème bi foofu mooy da dul xam ndax mën na koo jaayee loolu est-ce que dina ko jaayee lu maanaam euh, loolu waa wala déet que dina am client bu bu ko mën a jëndee loolu est-ce que dina am client ko jëndee loolu foofu la problème bi di nekk maintenant loolu moom moo tax ñoom dañuy ne waxu Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu ci li muy tegu mooy comme xanaa bi lay am dañ maanaam mooy lan ci li muy mooy su fekkente ne dama ko jaay sous condition que euh, prix boobu noonu ñu xam ne ci marché bi prix bi nangam la maanaam ci marché bi prix bi nangam la voilà parce que tamit dafa am beneen problème boo xam te ne dafa am mooy waxaale loolu yaakaar naa jotoon nañ ko gis bi ñu ci gis ci bu yor problème bi am ci waxaale dafa am waxaale bu bu dagan mooy bu yemamaay mooy bi nga xamante ne dafa yemamaay mooy ne prix bi ñaata la nangam la ah non def ko nangam mooy mooy loolu mais waxaale boo xamante ne par exemple euh, de de euh, da ngay yëkkati prix yeeg di ko wàcce bu baax a baax loolu dafa xaram comme Sénégal ni ñu koy defee loolu moom dafa xaram moom d'ailleurs loolu day yàq économie te te loolu moom ngay gis moo tax par exemple tey Sénégal xamuloo lan mooy jar ñaata. ce qui veut dire que ne yow munoo am benn projection bu leer ci sa ay produits munoo am benn projection bu leer ci liggéey liggéey bu fekkente ne liggéey bu loolu ngay liggéey dañ koy jaay après voilà xanaa nga yóbbu ko ci ak yi nga xam ne dañoo formel mooy yenn enseigné nga yóbbu ko Auchan waaw xeet foofu moom gars yi mën nañ bañ a waxaare mais soo ko bëggee jël indi ci marché bi teg nangam dañuy yàq sa alal sa économie te waxaale bokk na ci yàqu-yàqu yi ci nekk mooy kii lay kii waxaale tout le temps day ànd ak benn xeetu ñàkk dëggu bu ne ci moom maanaam mooy day bari lu mu la naan ah non lii pourtant affaire bi tax ko demee nii xam nga affaire bi bon voilà bii sax du qualité bu baax bi xam nga bii sax dangam pour nga wàññi sa prix maanaam utal la sikk ci sa affaire ci sa marchandise pour nga wàcc bu baax sa prix wala maanaam ce qui veut dire que ni tey mu ngi mel ni tey man ma bëgg a defar benn construction loolu problème waxaale laa lay wax mooy mu bëggee tabax kër ma ñëw nga defaral ma devis maanaam yow yaay yaay artisan nga architecte la leneen waaw nga nga bëgg ma defaral ma bëgg nga defaral ma devis yow devis bi ngay wax tey bu ma la waa bu ma la ko wàññiloo da ngay wàññi qualité liggéey bi su fekkee dangaa ngaa dëgg woon dès le départ te ni vrai prix bi nga ma waxoon su fekkente ne demeewul noonu mu amaat beneen problème moom mooy su ma nee la saa waay non wàññi ko li ma lay wax prix bi ma la prix man prix bi ma lay proposer euh, soit danga nga naan ma waa ok mais bu boobaa ni ngay def mooy matériel yi ngay jënd pour tabax ko qualité bi nga bëggoon a def au départ moom nga sóoraale woon ba def devis bi. qualité boobu moom faaw nga revoir ko à la baisse parce que mënoo liggéey ci yàlla naa dee ce qui fait man damay jàpp ne am naa lu baax ndekete awma lu baax parce que damaa waxaale wala ma bañ a waxaale fekk prix bi ñu ma wax yow yaa ngi doon xaar pour au cas ma la non saa waay wàññi ko def ko nangam bu ko defee nga doog a wàcc wàññi ko te man bu ma waxaalewul kon bu boobaa damay fay lu ëpp fuuf mbir mi ni waroon a jar te loolu manque ak gagner la ci sama économie man ci kaw loolu maanaam mbir mi day mujj a nekk ci ci xeetu njuuj njaaj xeetu naxante xeetu insincérité boo xamante ne day globalisé wu ba pare collectif ñëpp di ko defandoo maanaam xe moo tax mbir yi nga xamante ne moo tax bokk na ci liy doxal économie mooy mbir yi ñuy xam njëg yi ñaata la maanaam lan lii ñaata lay jar. mu leer na ne bu ma yoree lu toll noonu baguette mburu lii lay jar voilà ma xam ne baguette mburu lii lay jar bu ma bëggee dem am mburu su ma yorul loolu ci sama poche suyee boo ma bañ a dem wala ma xool ku ma mën a mottalil wala yooyu wala ah ma tànn sama chance rek ndax sawaay dina ma may di ci des mu ne ko lii rek laa yor jàppale ma mais économie ci noonu lay dox cest dire que boo xoolee yii yii nii ñuy traité moo tax gis nga i l'islam dafa yéeme voilà voilà mu ne waaye nag wa qaala ibnu Sirin moo tax imaam mu ne mu indi waxu al imaam ibnu Sirin mu ne iza bu ko waxee bi awu jaay ko bi kaza ci nangam fa maa kaana lépp loo xam ne am na min ribi xam ci torow moy ci bénéfice fofu wala ka lolu ñëll na hmm. loolu boobaa aw wala bay sama nek na sama digënté wa bay naka ak sa digënté lolu bu boba fala ba sa bi du ay bi nga wax mooy liñ wax la kër gi lay jaay bo jaayé ko 20 millions ma jox la 5 millions wala ma jox la 2 millions voilà lolu day dagal léegi bu boba yow da ngay daal di mëna nek ak mustarak ajirul mustarak waxoon nañ ne ñi euh, salarié yi ñaari façon la ajirul xaas ak ajirul mustarak voilà ajirul xas mooy koo xamante ne yow yaa koy occupé ne ko defal ma nangam ci temps sangam ci nangam ñu ñu dëppoo ci maanaam nga di ma liggéeyal après man na mooy salarié après salarié alors que ajirul mustarak du salarié artisan wala auto entrepreneur kooku day mën a am ñeneen ñu bëri moo tax conséquence su ajirum xaas ak ajirum mustarak tam duñ benn boo nekkee ajirum xaas mooy koo xamante ne salarié nga tey bu affaire bi bu amee problème liñ la jox liggéey bi ngay def wala yooyu bu amee problème du yow yaay fay sa ki la employé sa employé mooy fay voilà salarié ko joxee oto par exemple oto bi accidenté. Euh, ki moom oto bi mooy fay maanaam moom moo war a réparer mooy defar mooy nangam mais bu dee ala sal doy kii nga euh, euh, ajiru mustarak nga boo ko yàqee da ngay fay yaay fay voilà maintenant nag yooyu yëpp dañ koy natt ci bu dee ku njëkk gi tant gisuñu ne lii moom moo sàggan càggante bu jéggi dayoo par exemple euh, ñu ne ko tabaxal kër gi par exemple employé la boo xam te ne dañ koy tabax la muy tabax euh, euh, ciment bi ñu gis ne ni mu ko kiwu ko maanaam xooyol bi baaxul ci loo xamante ne maanaam moom mesure yi mu waroon a def yëpp jox nañ ko ko xam nañ ni nii la ko war a def nangam ci dox la ko war a def et cetera c'est des choses strictes quoi et clair mu bañ koo defee normalement kooku moom moom day fay parce que moom moo ko moo ko responsabilité am la moo waroon a xool voilà am na nag ñoo xamante ne ajiru mustarak mustarak lañ mais duñ fay dara ñoom quelle que soit la situation duñ fay comme par exemple médecin voilà médecin du fay comme par exemple am na am na ñu bari ah, ñoo xamante ne euh, parce que situation bi ni mu demee la moo tax ñoom mënuñu leen fay loo mënuñu leen a wax woyu da ngay rembourser da parce que da def erreur sàngam parce que erreur bobu dafa dugg ci nite manam nit le fait que nit mo mel non. mais sous condition que ñu vérifier ni compétence yi muy wax ba tax ñu jël ko am nako ko su dee compétence yooyu amu ko ba day fay dommage intérêt yëpp koy fay maanaam pas dommage intérêt mais indemnisation plutôt moom moo koy fay donc lolu tamit il faut que ñu ñu ñu mën ko xàmmee. dégg nga mu ne wa qaala wax na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Bukhari comme c'est que day préciser lii lan ñii li ñu wax fu ñu ko teg mu ne li yenente bi ne sallallahu alayhi wa sallam al muslimuuna jullit ñi ñoom ala shurutihim ñu ngi ci seeni charte ah voilà inda shurutihim waaw ña nga fa seen fa seen charte voilà xadis bi xadis euh, Seydina Abu Hurayra la radiyallahu anhu bu imam Ibn Abi Shayba solo naka noonu soxna Aisha radiyallahu anha solo ko mu nekk Daaraqutni et cetera donc euh, maanaam mooy naan mooy ne jullit ñu dëppoo c'est-à-dire que donc les contrats de travail léeg-léeg bu ñu ci tegee ay clauses clauses yooyu maadaama xaraamuñ conditions yi ñuy teg bu xaraamul contrat de travail boobu dagal contrat de location bu ñu teg clause yi maadaama xaramul contrat de location bi dagan na maanaam conditionnalité bi ñuy teg maanaam charte yi ñuy teg ci liggéey bi nii la war a demee ak lii ak lii ak lii ak lii loolu ñun ñoo koy déggoo suñu biir sharia daf ñu ko bàyyee ñun suñu biir ñu war ko mën a lijjanti parce que adduna yi bokkuñu jamono yi bokkuñu place yi bokkuñu circonstances yi duñ bokk conditions yi duñ bokk

mais même jullit ak yéeféer ba pare tamit atte yi muy wax maanaam ñi muy leeralal masala yi mooy jullit ñi moo tax mu waxu ko noonu sallallahu alayhi wasallam voilà kon euh, voilà loolu comme par exemple euh, buñu ne euh, kii sénégalais bu am kii nu mu tudd bu am entreprise daa war a fay impôt tegtalewul la boo dul sénégalais waroo fay voilà voilà maanaam sénégalais bu jël bu employé waa Séné employé ab sénégalais da nga war a defam naa noonu naan tegtalewul ne boo employé étranger charte yooyu du la teg du la parce que dëkk bu am yoon tamit yoon bi duñ ko tànnal ñoom diw bàyyi ñoom diw maanaam loolu su demee noonu dafa impersonnel quoi Loi. voilà donc kon Inch'Allah, taala voilà léegi kon gis nga xadis bi nga xam ne moom laal mooy bu xadis seydna Abdullah ibn Abbas mën nañu ko gis léegi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana musaddad musaddad mu ne qaala haddathana abdul واحد مو ابن زياد العبدي من قال حدثنا معمر مو ابن راشد الحداني الأزدي الحداني الصنعاني آه، عن ابن طاووس طاووس موي عن عن طاووس ابن كيسان voilà mais ابن طاووس عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس ابن كيسان عن ابيه موي طاووس ابن كيسان مام تام وايام لا نجيس يا حديث بي جيس ني تي كو وا بصره لا مي لوكو جاي تي مامر ني وايام لا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما آه، ان انه قال من نها ترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان yutalaqa ci ñuy gàttandu ar-rukbaanu gawar yi maanaam ñuy gàttandu caravane yi ah voilà gis nga maanaam balaa muy dugg si ci marché bi nañ bàyyi ñëpp am seen chance bu mën a jënd mbir maanaam bu buñ ko gàttandu di nax waa dëkk waa fële waa àll ba voilà gis nga maanaam loolu la tamit mais mbir mi xam nga ku nekk tamit selon conditions yi ngay nekk yow yaay waa àll bi waa àll bi tegtalewul tout le temps ki dëkk ci àll bi kese. voilà moo tax moo tax gawar moo na ñi ñu tere caravane bi marchandise bi bu ñu koy gàttatu voilà ne sawa yow marchandise bu yegsee rek wax ko balaa muy génn port rek nga daal di dem <laughs> dem nax waa ji waa ji dugg si ci dëkk bi gis ne ndekete dañ kaa nax loolu day indi noonoo ci diggante jullit ñi non na ma ah waa na ko lekk na alalam waaw ah, moom nee na ko saa affaire bi non xam naa ko fii nii ah affaire yi fii fii saa yi 10 euros rek nga ci mën a fii par benn noo ci xoolal maa la koy jëlal lépp boo bëggee man ma jël ko lépp 7 euros 7 euros lépp mais de façon 10 euros rek nga a am wala mu ne de façon 10 euros a mais man mën naa ko def sax 11 11 euros xoolal saa yi yëpp ma jël ko nga daal di ñëw nga dugg ci marché bi gis na affaire yi 30 euros lay def. yal nañu yàlla sàmm nga wala yabi wala yabi bu mu jaayal bu mu jaayal xaadirun aji teew mooy ki dëkk ci ci li baadin te ke dëkk ci àll ba qultu ma ne ko yabna abbasin ma ne ko seydna abdullah mooy taawus ibnu kaysar rahimahullah mu ne ma wax seydna abdullah ibnu abbas radiyallahu anhu ma qawluhu lan mooy laa yabi yow bu mu jaayal xaadirun aji maanaam ki dëkk ci taax gi li baadin ñeen ki dëkk ci àll bi xaala mu ne laa yakunu lahu simsaaran hmm. laa yakunu bu nekk lahu ñeel ko simsaaran maanaam ki koy maanaam courtier bi mooy ki koy ki koy doxal a yi nee na du mu ko ko nekkal voilà après condition yi ñu koy teree tamit loolu gisoon nañ ko maanaam du ci lépp lañ koy tere quoi et cetera dafa am ci yuñ koy tere et condition yooyu gisoon nañ ko kon ñu am foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil